mooy dispositif bii di leen jàllale waruñ ci jeter le discrédit bu nu jeter le discrédit sur le dispositif day tax résultat ba du baax kon tey coow am na avant les élections coow dina am ci biir élection yi mhm. bu ñu paree tamit post day am c'est te loolu baaxul ci réew kay fal sax loolu di ko jig mhm. wax ngeen ci wàllu accueil bi accueil bi de conseil constitutionnel la am fële CDC eh, caisse des dépôts de consignation xanaa dañ fay déposer suñu 30 millions. dinañ la jox café di nga taseeg gendarme ak policier dinañ la jox café jox la boisson waaye conseil constitutionnel accueil bi c'est les gendarmes te dañ lay fouiller. fay da ngay dañ lay fouiller conseil constitutionnel ci wàllu accueil moom dañ lay fouiller gendarme yi ñoo koy réguler réew mi nag dafa toll foofu mooy réew mi dafa yàqu ku ko wax xam ni fossé am na. amul une ligne de fortification de la nation. Mm. te loi yi fi nekk c'est pas des lois impersonnelles. man gis naa candidat boo xam ne sur la nomenclature des dix pièces du ma tudd turam la déclaration sur l'honneur indiwu ko dañ ko ne demal indi ko. Mm. kon kay nañu yemale ñëpp une loi doit être dañu war a yemale ñëpp kon lii daal am ci réew mi jafe-jafe la indi ci wàllu accueil boobu rek laa leen bëggoon wax ni daal. accueil moom conseil constitutionnel amu fa foo dem ay milices fa nekk pour xam ni coow war na mën a am. ñu war a tëb maate leen foofu nag la réew mi toll. te wax dëgg yàlla ñun de li ñu jàpp mooy. dañoo war réconcilier set nation là nag. te boo mm. xoolee lii am fii am na camp boo xam ne ña nga naan lépp baax na. Mm. sigil sigil yaa ngi dem baax na. te à côté véritablement y des étincelles kon nañu delloosiwaat suñu xel. lii véritablement am Sénégal mosu fi am dama jàpp ne suñu démocratie xaj na dafa màgg dynamisme la yéeg si na foo xam ne c'est le paroxysme mais boo xoolee pante bi lañ nekk di jël nag. di jëlaat pante parce que parce ah, ñu ngi jël pante bi fi ñu toll nii moom franchement ce n'est plus une une démocratie. lu doy mmh. waar moo fi nekk. Mmh. am na ñu ne sax nag léegi comme ba tirage rek la waaw te tamit du élection présidentielle sélection la. waa teenu jël rek tiire kenn ne mooy président bi. tiire jël xaalis bi jox ko askan bi. kon daal loolu laa bëggoon insister ci wàllu véritablement accueil bi ñu wax. accueil bi de non amu fa moom kay. accueil bi de inspecteur Sénégal ci boppam ñun ñoo war a xoolaat suñu bopp. da ngay dugg sax ci benn grande surface wala fenn war jënd benn affaire yow da ngay indi xaalis yow client nga pour jënd. mais buñ la accueillir rek yow dootoo bëgg jënd yow yow yow buñ la buñ am na lu ñuy wax ak yow rek yow dootoo bëgg da nga sa xaalis loolu moom loolu moom sénégalais moo mel noonu lu doy waar la xam naa dañu am xamul administration ak état ñun tamit ñu ragal administration waaw loolu tam sa historique ça peut s'expliquer boo defee benn investissement historique da ngay xam lu ko waral mais tey yow boo xëyoon di dem ambassade de France am nañ seen taar nag waaye boo fa yeggee 6 heures du matin di ko fekk nit te buñ la séenee ñoom ñoo lay jëli. ñoom ñoo lay jël si mais ñun moom malheureusement. yooyu yëpp moom laay wax ñun côté boobu ñun ñun suñu làmmiñ moo réy ñu nekk di wax waaye côté boobu moom. ñu dañ cee arrière war nañu góorgóorlu toujours ñu wax ko man man naa dem nañ. deux poids